wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat cey sëriñ Tuba jërëjëfati sëriñ Tuba waaye Tuba ca kanam gàcce ngaalaama mbokk yi bëri na mag ñoo xam ne ku leen yeewoon tey ne leen wi ngeen di gis Touba la ñu weddi la mbokk yi xool leen xàll wi nga xam ne mbokk yi moo bàyyee ko station Daaru Xuddoos jëm rond point garage yu Daaru ba ca kër Serigne Sidi Moxtaar jàggante tax ay at mu lëndëm kiris ndax lan dañ doon xaar ku nu ko niital seeni ñaari téeméer tax na xàll waa ngi ni mbokk mel ne bëccëg. toll na jamono yoo xam ne bu timis jotee kenn du génn mbokk yi ñaawte fu ne xew na fii diggante station Daaru Xuddoos rond point garage Daaru jëm kër Serigne Sidi Moxtaar Mbàkke soxna yi jaaxle lool buñ jógee xew ñu leen di dogale ndax lëndëm tey seeni ñaari téeméer tax na xàlluwaa ji bi leer nañ weddi nag gis bokk ca ولتكفني كيد كل استداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد ولتكفا جملة ما يفسدان waaw ñi féetee fii jaaxle woon lool ne ci lëndëm ay at ndax saggante waaw ñoom nu ñu dundee lii. fii kay mën na mën na lool fii guddi dawoo fu ñemee dox fii guddi dawoo fu ñemee dox waaye Issa ñu ngi sant Touba ci bu baax a baax a baax ndax lii mus fee am màggal yi comme ni ma la wax rek màggal la daan màgg jàlle mu fay ginnaaw loolu màgg seeb la màgg seeb la jàlle day fay. ñoo ngi rafetlu liggéey Touba ci kanam bu baax a baax a baax ndax mbedd yi ci ginnaaw yëpp ñoom ñoo ko defaroon ñoo ko sakkoon aussi itam ñu ñëwaat ci ñu ñëwaat nii ci lamp yi nii ñoo leen ciy sant bu baax te rafetlu seen liggéey macha allah. gis na ni dëkk bi leer na nañ am problème foo jaar ndax lëndëm mais bu ngeen ñëwee rek dëkk bi leer na naññi naññi nit day taxaw fële sax mën kaa gis te loolu seenu baax ak seenu li mën a liggéey Sëñ moo tax ngeen def ko. macha allah liggéey bi daal rafet na lool macha allah foo jaar danga ko gis liggéey Tuubaa ci daal boo xoolee danga gis boo làmbee danga ko daj waaw Tuubaa daal sant nañ leen baax baax di ñaax ndaw ñi tamit ñu gën a góorgóorlu baax baax waaw lépp loo xamante ni laaj nañ ko rek ñu fas yéene ko jëf def ndax ñoom dañuy laaj luñ man def ko fuñ xam loolu moom la ko sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waxoon. comme sama sànq gi maa ngi leen weeru dee 1000F yomb na si man laa koy tàmbalee chaque weeru dee 1000 ñëw dagg ko parce que nag moom mi ngi fépp mi jumaa ji fépp foo xam ne daal ah lii yomb na am na orange money am na am na wéef di soññi sama sànq yi ñu jàpp si bu baax waaw fonk dëkk bi te dëkk lañ am fi leen juddoo lépp loo xam ne day jëmal dëkk bi kanam. dañ see war a jàpp muy lépp bu noonu laaj sax weer junni sax waroon ñoo jaayante jëm suñ Tuubaa def ko. ku ko man sax di def douze mille yi par fee de par par année bi. moo gën na na murid yëpp passé même ku du mën a liggéey suñ Touba amul murid amul tijaan. Touba leer nañ ak seeni ñaar téeméer ñu defe ne ca la ca kanam di yem ñu ne déedéet commandé nañu ay poto li ko dalee ci kër Serigne Sidi Mokhtar ba ca hôpital bu bees ba day leer nañ. وكن لنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وسلام وتخرنا بفعل ما مبتاه ولتكفنا عن فعل ما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وهب لنا التيسير والفلاح ñu ne fa la Touba ca kanam di yem ñëw leen ñu ànd départ ci station Daaru Xuddoos bi jëm Tookoor ba mbokk yi xool leen mbedd mi nga xam ne ay at day lëndëm kiris màggal ba màggal lañ ci jéem dara mbokk yi bu màggal gi jàllee mu delluwaat ci lëndëm xool leen tey seeni ñaari téeméer tax na mbedd maa ngi nii leer nañ ñu ne Touba ca kanam ndax da yem tóokóor ba mu ne déedéet dañoo bëgg a fellanti garab yi waaye allié lañ jëm ak seeni ñaari téeméer ciy sëriñ Touba waaye ciy Touba ca kanam mbokk yi xool leen xool leen tóokóor ba xool leen ni mu mel léegi. ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا وما لا يغني بك ودابا أخينا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة عوسا من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نسيب فاغفر لنا xam ngeen ne sëriñ bi bëgg na ci yéen de Serigne Abibou Mbacké ak mboolem kilifay Touba ca kanam ñëw nañ nemmeeku ci liggéey bi mbokk yi doxantu nañ ci mbeddi Touba xool ni nga xam ne noonu la def ñaari xàll yi ci seeni ñaari téeméer te mu lëndëm kiris ay at a ngi nii ndax lan dañ doon xaar ku ñu ko niital mbokk yi. Serigne Touba de moo ne woon te 1926 na kenn ku nekk indi ñaar fukk ak juróom-ñett ñu dajale ko muy ay koppar yu bari mu ne damaa bëgg bu ëllëgee lépp lu ngeen di defati ngeen def nii ndax damay bañ ku leen mënal sañal leen ñu fàtte ko defe ne yoon wi yoonu xaaraate la di xaar ku ñu niital mbedd sëriñ Touba yi waaye xool leen bi seen ñaar téeméer yi dajee ci loxoy Touba ca kanam lii de mooy dëgg dëgg laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam mbeddi sëriñ Touba bu ñu sàggane ba mu lëndëm kiris Touba ca kanam fas yéene feddali laxasaay yi ak seeni ñaari téeméer leeral ko ba mu bu seeni ñaari téeméer dakkul mbokk yi lii moom du dakk kon ay ca mburit seeni ñaari téeméer yi ci diir bu gàtt tubaa ca kanam jënd na lu toll ci fukki junniy làmp ak juróom mboolem barab bu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba Touba ca kanam fas yéene na fa samp làmp mu leer naññ képp koo xam ne danga ragal leer nag toxul tubaa ca kanam mi ngi ñëw ak seeni ñaari téeméer Touba leer naññ lii mooy warteef dëkkub leer day leer yallaawu yaa waabu yaa ala rafiq di yàllukan al yowma anfa tariq bi um hurmati almustafa almuqarrabi wala li wasabi wasabi rajabi judliya bi taxdimi wa tasdiqi bi hurmati almuqaddimi siddiqi wajalilaayi maskani tubaaba الدنيا بجاي خير ما نبات